ma daal di xamal jigéen ni meloon bu njëkk ak ni mel léegi su ko defee loolu mën naa ubbi xelum jigéen ci muy xalaat ci muy xalaat ci ay mbiram nga xam ni bu ko seytaanee jàppul li muy njëkk xalaat mooy ki ma defal lii lu mu bëgg ma defal ko ko loolu tax ginnaaw bi ma xamalee jigéen ni meloon bu njëkk ak ni mel léegi ma xamal ko ni muy delloo njukkal lislaam su ko defee jigéen gi bu ko yàlla sunu bu ko yàlla sunu borom taw féexalee day tàmbulee ju bala moo yàgg seytaane tàmbali koo dugg di tàbbal xalaat yu bon ci xelam mel ni mu naa ko nii nga mel yow dong yaa ko mel ci dëkk bi fexe leen roog nit ñi looloo looloo tax bi ma ko xamalee ni muy delloo lislaam njukkal ma xamal ko ni jigéen ju baax di mel ak ni mu war nekkee am muñkat wax naa ci loolu lu bari daal di koy tuddal ay tànnee fi jigéen yu mu war a roy ba mën a mucc waaye bu dox bu tuuti day gis day gis ay jigéen yu baax askan yor melokaan wu wuuteeg wi lislaam bëgg ndegem jigéen dañ ni xelam daa gàtt li muy daal di xalaat mooy xoolal nii ñoo ma gën fopp di mel ni man daal dama leen di roy ndax ñooy samay royteef looloo tax bi ma looloo tax bi ma ko xamalee ñi mu war a roy ma daal di koy xamal ni mbooleem gis-gis yi jigéen di tub di topp dara la ci sunu borom bëggul daal di koy leeral yàqu-yàqu gis-gis yooyu daldi jàll wax ko xaq yi war jigéen ci jëkkëram ba mu gën a xam ni mu gën a xam ni li ëpp ci jigéen ñi defuñu li war seen digganteeg seeni jëkkër lolu gën ko yokko farlu ci biir loolu la jalle far waxale hak yi war goor ci soxnaam bu li jalle jigéen ji day daldi tàmbali di dund dund gu neex ci biir kërëm ci biir kërëm ndax namp na ci wénu l'islam ba xey fer waye bu toogee tout du ñak muy dégg walu wàññim njur ni planning familial ci moromi jigenam su ko ndegam la li muy bëgg mooy xam ni lislaam wax ci wax ci looloo tax ma mottalee téere bi ci mbirum dasal ak wàññim njur teeñaan sunu boroom moom miy ubbi xol yi mu def téere bi muy téere gu tusaaroo ci mboolem gox góor ak jigéen di ko jàng di ci jariñu seeni xol sedd ci di ci te bind nañu ci tuyaaba ju rëy ji lu dog jéggal ñi jéggal suñu yaari waajur ak mboolem xeetu yonente bi sallallahu taala alayhi bi ay wa sahbihi wa sallam ñun téere bi sax mi ngi ko def ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ci gàddaay gi tolloo ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci fukki fan ak juróom-ñett ci xeeda waaw loolu naa amul dér kon bu dee ci waartu weeru tubaab mi ngi tolloo fa ñaar fukki fan ak juróom-ñeent atum 2000 ñu ngi ko defee sax ñàpp na foofu la muqaddamu téere bi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لله الذي خلقنا أزواجا ويسر لنا سبيل العقل وجعلنا من أمة النبي قاتم نعمده ونشكره وهو القائل في كتاب الحكيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وصلواته على رسوله الكريم سيدنا محمد القائل استوسوا بالنساء خيرا وعلى آله وصحبه الحاج مبك مي گنا دويدي گنا خمدي موي سانت بروامم تي جولي تي يونتي صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم كي واخني استوصوا بالنساء خير النساء خيرا فإن المرأة خلقت من دب من دعاء أعوج وإن أعوج الشيء في دلعي أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته wa in taraktahu lam yazal en waj fastawsu bin nisaai xayra loolu Buxaari moo ko loolu Buxaari moo ko nettali ak muslim jële ko ci Abi Hurayra te loolu mooy ànd leen ak jigéen ñi ci ànd gu baax te leen di yërëm tey maslaa ñoom ndax jigéen ci faar gu dëng lañ ko binde boo ko dee jubbanti damm ko boo ko bàyyeet muy dëng boo ko bàyyeet muy dëng rek kon di leen ak jigéen ñi te ñooy soxna yi kon ñoom mi ñu mel yàgg nañ ci ndax li yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi moo ko waxoon te boo seetloo wax ji xam ni bañ leen bindee ba tey la wax waaye loolu bum tax loolu bum tax ñu ni ñoom nii la ñu mel jëruñoo sonn loolu moo tax yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama baamu fastawsu bin nisaa'i xayra ñaari yoon ndax sunu boroom bi mu waxee ni ina nafsa la amaaratun bi soo teewul mu wax ni mu wax ni wanaha nafsa anil hawa bakkan lu bon lay digle waxtu wu ne waaye sunu boroom digg na ajjana ku téye bakkanam ba du jëm fu mu wëtt jëm kon jigéen ñi doy nañu waar lool waaye du tee ku ci ne ku ci mën a wax dara dara nga ciy wax looloo tax ma def téere bii li may jiital kenn si ku ñu jigéen ku sonnoon la ci yu bari njëkk lislaam te dañ koo jàppe woon lu mel ni bàyyi na amul benn xaq ndax dañ daa wax ni mënta dem xare te loo amul lekk te ñoom bi ñuy wax loolu ñu pàtt ay njariñam yu bari dañ daa def ku faatu bàyyi fi ay doom jigéen kese duñ am ci sa alal dara baay bu ndaw mooy jël lépp xool ko ci safwatu tafasir xëtu deux cent soixante deux ci xaaj bu njëkk ba buñ ko ba buñ ko masaa jur te màggagul dañ koy suul muy dund loolu alxuraan moo ñu ko wax wa isal ma udatu su ilat bi ay zambin xotilat bi maxnaa bu ëllëgee daneen laaj liir yu jigéen liir bu jigéen bañ suuloon te deewul ci ban bàkkaar lañ ko reyee أجلم رهني وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كسيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون jaahil yu njëkk ya ku si maasa am doom ju jigéen yéen kanamam day ñuul kukk ngir mer ak jaaxle su ko defee muy tàmbalee xalaat ndax da koy téye ànd ak ak doy dem am da koy gas suul toogaan ni xiin ba tey seeni jabar bu masa mbërëg dañ koy génn kër ga du fa lekkeeti du fa keeti du fa naaneeti duñ booloo moom ci dara xoolal safootu tafasir xatu 140 ci xaj bu njëkk ba ba tey lu leen neex lañ daan fase seeni soxna ba noppi jaraat ko doonte mën na téeméeri yoon lii lépp di ak doy gu leer bu leer te jigéen mënta wax dara ana kan la koy wax ndax booba ñépp a maase ci loolu waaye jamono yim gën a amee mettit mooy jamono yonente yàlla lu alayhi salaatu wasalaam ndax booba góor ak góor ñoo daan sëy alxuraan mi ngi wax ni wa jaa ahlu lmadinati yastabshiruun qaala inna haulaai dayfi fala taflaxuun واتقوا الله ولا تخسرون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام daam ay gan daam ay gan waa dëkk ba ñëpp bokk di waxtaan loot am nay gan yu góor yu rafet ba ñëwee ci kër ga di leen sàkku loot tere leen ñu lànk ni ko tere guñ la nga ñu tere mu ne leen ñi ñëpp samay doom yu jigéen lañ ñu ni ko amuñu ci moom soxla te xam nga loolu ba tey jii ba tey jii dañ ko daan luyante ak di ko wax demal njaalo ba am nangam ci xaalis andil ma loolu boo xoolee firim wala tukrihu fatayaatikum alal bighaa'i in aranna tahassunan li tabtaghu haradal hayaati dunya wa man yukrihunna fa in allaha min bahri ikrahinna ghafurur rahim da nga ko gis yi lépp di coonee jigéen njëkk lislaam bi nga xamee ne lislaam diine yi dëgg ñëw na la daal di dàq mboolem yooyu delloo jigéen xaqam léegi ku faatu bàyyi doom ju jigéen dana donn te sax sa genn wàllu alal lay doon bu dee kenn bu dee kenn buñ bëree am ñaar ci ñett ba tey ku ko rey ñu rey la te ku ko tey tàbbi sawara sunu boroom subhanahu wax ni wala taqtulu awlaadakum min imlaaqin naxnu narzuqukum wa iyaahum ak wala ak xashyata imlaaqin naxnu narsu naxnu narzuquhum wa iyaakum bu leen rey seeni doom te ñooy doomu jigéen yi ngir ragal ak ñàkk ndax maa leen di wërsëgal ba tey mboolem yi ma waxoon léegi boo xoolee téere lislaam yi xam ni loolu lépp dàqu na alxuraan folli na lépp ba tey yërëm gi ko diine yërëm xamni ku doy di la tax na yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sahbihi wax wax ni laysa ahadun min ummati yaulu salasa banatin aw salasa akhawatin fa yuhsinu ilayhinna ila kunna lahu sitran min an-nar lol ay albay albay xeq yu moo ko nettali jële ko ci sayyiduna sayidatuna aisha limi muy moy kep ku njabote ñetti doom yu jigen wala ñetti mbokk yu jigen di leen sàmm ak di leen toppatoo ak di rafetal ci ñoom doo dugg sawar mukk loolu fi mu ne bu ko góor ñi ko man ñëpp defoon jigéen jigéen du yàqooti incha allahu taala ba tey bëgg gi ko lislaam bëgg bëgg ba tey bëgg gi ko lislaam bëgg a dimbale moom jigéen tax na yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa wax ni ab abgadul xalaali ilallahi ab talaax loolu aboo daawar moo ko nettali mbooleem yi mbooleem yi dagan fosel la ci suñu boroom gën a bañ nga xam ni bu doon lu mën a ñàkk day xaraam te loolu lépp di xool gu lislaam xool jigéen bëtub yërmaane ndax jigéen bu séyee ba tas day tumuranke lool loolu ñépp a ko xam bëri noo xam dañuy taxawaalu taxawaalu te loolu képp moo ko waral ba tey yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi di wax ni مكتوب في التوراة من بلغت له ابنة اثنتي عشرة سنة فلم يزوجها فأصابت اسما فإثم ذلك عليه لول البيهقي موكو نتالي نتالي لمي في موي بين نينجي التوراة ني كو أم دوم يجيين ولا دوم يجيين جو أم فكي أتاك نار تي ووتالوكو بروم كربام جالا بكر بكليفا موكو يجاتو kon nga xam ni yonent bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa alihi wa sahbihi wa sallama mi ngi ñaax kilifa yi bu baax di leen labiré ndax jigéen bànneex yu mel noonu buñ ko xaajoon téeméeri xaaj dana ci am juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeent góor am ci benn noonu la ko yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama waxe فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءا من اللذة walakin allah alqa alayhinna alxayaa loolu albayxiqi yu ba tey moo ko nettali jële ko ci abi hurayra li muy firi ko mel noonu nag kenn waru koo bàyyi muy toog loxoy kese ba tey yaram gi lis lislaam yaram jigéen dem na bay digal jëkkëram bu booloo moom ba aajoom faju bum jug te jigéen gi aajoom fajuwuñ looloo tax yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wa ni isa jama ahadukum imraatahu fala yatanaha hatta taqdiya hajataha kama yuhibu an yaqdiya hajatahu kon lislaam mësta deñ di fonk jigéen ak di ko yërëm léegi ana njukkalul jigéen jim war a delloo lislaam ndax jigéen waxoon naa ni ko lislaam tàmbalee dimbulee kon war na koo delloo lislaam war naa delloo lislaam njukkal te loolu bu ko bëggee dana ko yomb ndax lislaam laaju ko alal xare xare loowu ko bañ na ko ba yenn jaamu yàlla yi da ko ko woyafal ndax yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama nee na إذا زلت المرأة إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاحت زوجها دخلت الجنة البراس موكا نتلي جلكوتي أنس جيجن بولي جولي julli farataam di woor weeru kooram di wattu am payam di topp jëkkëram daal di tàbbi ajjana waaye jigéen deful noonu léegi fàtte loolu lépp muy mbir mu tiis teewul nag am na jigéen ñu bàyyi lool xel fuñ toll ak ñu ko bàyyi woon xel cëlawéy waaye ñi ko bàyyiwul xel ñoo ëpp ndax yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bi mu yëree sawara jigéen ñi la gis ñu ëpp fa góor ñi ñoo ci jigéen gu baax jigéen ju baax day woor weeram wattu payam topp jëkkëram te yëpp tànkam ndax sunu borom nee na waxarna fi buyutikunna wala tabarajna tabarujal jaahiliyati loola kon li gën ci moom mooy bu mu génn ci lu dul ndigalul borom këram ndax yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam wax na ni jigéen ju génn këram ci lu dul ndigalul boroom këram lum taseel da koy mbugalul sunu borom mën na maa wax ni jigéen du man dara lu dul daa jiital toog ci këram ndax loolu moo koy dimbale ba mën a sàmm liñ koy sàmmaloo ci këram te jigéen bokk na ci ñiy sàmm te ñu leen di laaj li ñu sàmm bu ëllëgee moo tax yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa wa sallam wax ni كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته ورجل راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته والابن راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته متفق كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته المتفق له جلكو ابن عمر hadis bi donte daa gudd dama ani lépp ngir keneen ku ci taxaw mën xam ay warteefam xaa ñu lii ko léemu li liñ firi mooy yonte bi dañ seen maam yéen ñëpp maam ay sàmm ngeen te sàmm bu ne boo liggéey mooy responsable am doon sàmm imaam ji ki jiite mooy responsable ña toppoon ci ginnaaw góor gi it moo yor responsable waa këram jëmmi jigéen ji ah la xew ca kër jëkkëram mooy responsable moo koy sàmm ci néegu néegu jëkkëram jëmmi ndaal mi ci àllu sangam moo koy gàddu jëmmi doom ci alali baayam moo moo boo léegi leen ko laaj moo tax daal képp ku ne daal lam lan ko féetaloo bu bu ëllëgee laaj nam ca féetewoo loolu mooy gàttal bi ci këram lu rëy la luñ koy laaj la donte sax moom toppatoowu ko xoolu ko teewul nag jigéen ñu baax ñi ñu ngi koy xool ak di ko bàyyi xel te sax te sax jigéen li tax mu war a gën a téye ab tànkam mooy xëymam téefam ci góor day bari lool te ñoom lu mu yàgg-yàgg seen xëymam téef du wàññiku day yokk waaye du wàññiku wuute góor ni nga xam ni bët du doyal ci xool suuf it xamee ni daf du doyal ci xol suuf du doyal ci taw ndax yaronte bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moko wax ci waxam ji arba'un la yashba'na min arbain ardun min matarin wa unfa min jakarin wa ayn min nazarin wa wa alimun min ilmin loolu alxakim nitali gis nga ni jigen la tek ci souf ci nim ko tegalé te mom jigen ak génnam dedul yam ci moom képp ndax góor gum taseel mu xool ko da ciy am bàkkaar yonente bi salallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa ma min muslimin yanzuru ila imraatin awala ramqatin suma yaxuddu basarahu ila arifa lahu ibadatan yajidu xalaawataha fi xalbihi loolu mooy bépp jullit bu xool ak jigéen xam ni kii ak jigéen la nga daal di xeeb fa saasa bañ koo tollanti dana am benn neexitu jaamu yàlla bu muy far ci sa xol te xool boobu amoo ci bàkkaar ndax abu muhammad al xayrawaani wax na ci téeréem bi tudd risala walay sa fi nafaratil ula bi xayri taamudin xarajun te loolu mooy xool ngay njëkk a xool boo ko téyul amoo bàkkaar boo ko téyee nag am bàkkaar waaye ku xool xam ni benn xool mën naa andi ci musiba lo xamni kenn mënu ko wax sàkkaa di ko bind waye li gëna waral génnu jigen ñi moy bari guñ bari ay ay yére yu rafet waye bu fekkon bari wuñ ay yére yu rafet seenu génn dana wañeku lol lolo tax yenente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam wax ni istainu ala nisaai bil 'uri fa inna ihdahunna idha kafarat thiyabaha wa ahsanat zinataha ajabaha alxuruj loolu ibnu adi yi moo ko nettali jële ko ci anas li muy firi mooy na ngeen néewal koddaayu jigéen ñi ndax loolu dañ leen dimbale ci toog ndax ku ci bëri ay yére bu waajee bëgg génn bu yuru yére yu rafet nag du waaj te bu waaju du génn lii nag du tee tee muy waaj ci biir këram ngir bégal jëkkëram loolu tuyaaba juróomi mi ngi ci lu aju ci jigéen gu baax laron doon wax boo gisee mu guddal ci lii day boo gisee mu guddal ci lii day am lu day day lu am solo loo xam ni góor góor ñi ak jigéen ñi dañ ko war a xam ginnaaw loolu moom jigéen mu xam ni bokk na ci li mu war a def bu bëggee baax nangoo muñ ndax bànnee andiwul kenn ci këru sëy xanaa da ko fay fekk waaye andiwu ko fa kon faw ku bëgg doom ju baax na nangoo muñ bu baax soxna jaari bu sa daana wax loolu yal na yàlla yokk leeram te moom muñ ci la mboolem jikko yu baax yi nekk te moom muñ ci la mboolem jikko yu baax yi di amee mboolem jigéen yi am doon bu ñuy yéem ak barkeelu ci ñoom dañoo nekkoon ci lu baax nangoo muñ sëriñ Fallu mu sëriñ Tuubaa xaada lahu llahu maxtaara daana wax ni wàllu yi ñu ngi nii ci kaw asamaan waaye dañoo gisul jigéen ju baax juñ mën a jaare ba wàcc li ko waral mooy jigéen daa mel ni suuf te xam ni suuf bu baaxul loo ci ji du sax wala bu saxee du baax waaye teewul dana am waaye teewul dana di am gaañu baax te seeni wayjur meluñ nañu war a mel ndax sun maam Ibrahima waajuram Azara ab yaafar la te moom ab yonante la kon du caay géen génni jigéen gu baax dong mooy jur ku baax waaye nag moo gën a bëri ndax sunu boroom kenn mënta takk ay jëfam waaye bari na lu muy def di ko jaare ci ay sabab ak aada ni ko sëriñ Tuubaa xaadalahu lahu maxtaara lahu waxee ci masalikul jinaan alxuraan mi ngi mi ngi nettali sayyidatuna Maryama bi mu amee doom ju amul baay ba nit ñi xam ko ñëw naa ko ma kana abuki imra'a saw wa ma kanat ummuki baghiya yow day sa baay nekkutoon ku bon sa yaay noonu ci loolu ngay xame ni ku baayam ak yaayam baax néew na lu bon loolu tax na gaañu baax na mësuñoo deñ di ñaan seen boroom soxna su baax dimbali ci diini Sëriñ Tuubaa xaada lahu laahu maxtaara lahu mi ngi wax ci xasida جتد مطلب الفرسين صالحة تعين على التقى والبر يا معين سنو برام يلنا ماماي سوحنا سمي دمبولي تراغال يلا سنو برام أكو طب نخيون تبي صلى الله تعالى عليه بأي وسبي وسلم دعوهن من تزوج فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في الثاني كتك سوحنا sakku nga matal saxaaju diine fexeela matal ba ca des ci ragal yàlla mu mel ni kon looloo tax sëriñ bi di wax soxna su may dimbale ci ragal yàlla sunu borom ndax ku matal sa xaaju diine dimbale na la ci ragal yàlla sunu borom sëriñ Tuubaa xaada lahu laahu maxtaara mi nga wax ci biir xasida gu tàmmulee alhamdulillahi li si xajaadali bi ma bihi shakartuhu min nail bu fekkee wér na ni moo ko def mi nga wax naan تقلي بجاهي ولودا منجبا تلد عارفا علي مرتبة وكفني وكفها الشيطان ولي وهب لها الأمانة شنو بروم يانا ماما نعم يسوغنا سوي أم دوم يباخ نيوتي سوغنا سوباخ سوغنا سوباخ موغن لب جنا ورقال يالا شنو بروم نخيرون تبسل الله تعالى علي بالي وسيبي وسلم نينا نعم. ما استفاد المؤمنون بعد تقوى الله عز وجل خيرا من زوجة إن أمرها أتاهته وإن نفر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله rawaahu ibnu maaja loolu mooy li mooy lu way di wut ginnaaw ragal yàlla dara gënu gënu caa yey su baax soo xam ni boo koy digal muy def bokoy xol di bek bo fi nekkul dula war soxna ci melni foko jele ko jële tudd bala nga gis jigen ju la ko nangul da nga sonn lol man tok na bis ak ben borom kër mu digal soxnam dara mu ni ko degg na ko nga xamni juk def ko ba mujj borom kërëm mo juk dem def ko te loolu bari na ci kër yi lol dama doon leral am gi rek su ko defee da nga gis koo xam da leen di mën a muñal lool ba mujj dellu ginnaaw waaye lu ne moo tane fase sunu boroom bañ na ko lool yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi nee na laa tutallixoo ila min ribatin fa in allah laa yuhibu zawaaxiina wa sawaaxaati loolu ak tabarani yu moo ko nettali loolu li mu firi mooy bu leen fase ci lu dul sikk ndax sunu borom bëggul góor guy takk-takkee ak jigéen gu ñuy takk-takkee te sax jigéen ji moo war a rus loolu am na génn jigéen gu baax koo xam ne boroom këram këram daa faatu mu dem ci rakkam ni ko dama bëggoon nga yor ma ndax dama am mag sa mag ay doom te bëgguma askan wi jaxasoo man mu ni ko bëgg naa laa yor ngir li nga wax waaye dama mukkalul alxuraan di bëgg a laxas fan yii bëgg a jàngi alxuraan te danaa fa yàgg danaa fa yàgg lool boo ko mënee toogal bu ma ñëwee takk la boo ko mënul boo gisee ko la mën a yor baax na jigéen ji toog ba mu del si takk te ñëkkul ci biir loolu ñu ko doon bëgg waaye gis nga ni ak baax ak am looy rus jeexul mi ngi am ba tey waaye day néew suñu borom mi ngi tagg jigéen ju baax ñi jigéen ñu baax ñi di wax naan fa saalihaatu xaalitatun xaafidatun lil xaybi bi ma xafisa allah jigéen ñi wi dañuy jaamu yàlla sunu borom di wattu seen pay bu fi seen jëkkër nekkee ak bu fi nekkul yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa arbaun min sahadati mari an takuna zawjatuhu salihatan wa awladuhu abraran wa xulafaauhu salihin wa an yakuna rizquhu min baladihi lol da day la mi yu jële ko ci ali li fir moy ci texal nit la bokk sa soxna baax say doom baax say àndandoo yiw sa wërsëg di jóge ci sab dëkk kon gis nañ ni lislaam tagg na lool jigéen ju baax gaañu baax ni itam biñ gisee loolu tax na ñuy bari luñ koy ñaan mu am juróom fukki at walla lu ko ëpp te amul soxna benn bis ma laaj ko lu ko tee am soxna mu ni ma daa gisul jigéen ju baax ma daldi jàpp ci sama xel ni dootu am soxna li des ci dundam ndegam nit ñi baax ñi ñoo mën a muñ jigéen noonu ngir ak bon ñu seetaat seen bopp teeree ci ñu baax ñi xool nañ daa def ñu koy def fa tashabbahu in lam takunu mislahum ina tashabbu ina falaahu <laughs> tey jineer waxtu wu ne ko mel ni maam jaare bu si lahu ko maxtaar lahu kii roy ci mboolem jigéen ñi ndax laataa muy am boroom kër mokkal na alxuraan jàng xam-xam mokkal dalailul xayraat daana naafile guddi gune ak di teel a jóg doonoon ku mën a muñ am na bis muy bëgg a taw fekk am bant bu boroom këram doon samp ba taw ba soobee mu ni ko téyel ma lii mu téye ko boroom këram dugg ci néeg ba fàtte ko fa ba fajar mu nekk fa bu boroom këram génnee di jàpp gis ko mu laaj ko loo fiy def mu wax ko ko mu ñaanal ko ñaan gu wax nañ ni biñ ko nee dañ lay bëgg a jox koo xam ni ab jàngalekat la daa ubbi ab kaamil yam ci maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatima nabiin wa kaana allahu bi kulli cheyin alim loolu ci la yem mu wax ni yonante bi ndax ni bu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam wa sahbi bi alihi wa sahbi wa sallama nekkutewoon ki tëj buntu ak yonente danaa fa sëy ba jur fa ak yonente wax nañ ni moo soxna Anta Njaay mas nañuy waxtaan soxna Anta ni ko danaa fi jur ab jant insha allahu taala mu ni ko bu subaat ca suba ba ñuy waxtaan mu ni ko danaa danaa fi jur asamaan te xam nañ ni asamaan moo ëpp jant ndax biddiw yi ñoo ëpp jant bi te ñu ngi ci asamaan si te sunu boroom lum mu rëyal loola yaatu na ndax du rëyal lu rëyut te moo ni wa samaa banaynaha bi aydin wa inna la musiun boo seetloo wax gi ko soxna si wax bu subaa danaa la tontu du dara lu dul ay teggin ndax lim ko tontu xamoon na ko bi muy wax ak moom waaye delloonte ay kàddu yu tegaloo da bëri lu muy sabab werante lool te loolu jigéen ñi man ko lool léegi ba tey am na bis boroom këram di ko toggaloo dara ci ak guddi fekk mu taw ba siwet amul matt mu xar ak gaalam def ko matt waaye boo seetee xaqi boroom kër daa diis lool ndax yonente allahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam wax nañu law kuntu amiran ahadan law kuntu amar law kuntu amiran law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu nisa an yasjudna li azwajihinna lima jaala allahu lahum alayhinna min alhaq loolu aboo daawar moo ko nettali loolu li mu firi mooy loolu mooy bu ma doon digal kenn mu sujjootal kenn jigéen lay digal mu sujjootal boroom këram ngir li ko war ci ay xaq ci moom ba tey nee na sallallahu taala أعظم الناس حقا على المرأة زوجها وأحسم الناس حقا على الرجل أمه loolu alxaakim moo ko nettali jëlee ko ci Aïcha li muy mooy dañu ki gën a rëy xaq ci jigéen mooy borom këram ki gën a rëy xaq ci góor mooy ndeyam kon soxna jaara yal na yàlla lokki yokki leeram loolu laxam xam ba tax na loolu mu doon def mu doon def mu koy def ba gu daana toggal boroom këram ab laax am bis mu am fu muy xëy teel a lool tàggu soxna si mu ni ko doo xaar mu ni ko baax na dama lay bañ a sonat nag waaye bi muy wàcc soxna si togg na fi ab laax ba dem di ko ko jox fekk ko mu yéeg ca kaw fasal mu bañ koo dëpp daal di topp ci ginnaaw fas wi di dox ba mu àgg fa mu jëm bañ dalal ko ci néeg mu dugg fekk ko fa jox ko mu laaj ko mu wax ko ni def mu sant ko bu baax kon melokaan yaa ngi noonu yéen jigéen ñi gis ngeen soxna si ni mu gàttew fan nga xam ni weesuwul fanweeri at ak li ko yàlla sunu borom may ñu ci soxna Anta Njaay soxna Anta Njaay roytee la ku baax la ku am diine la diine la ku tabe la ku ñàkk kiñaan la ku yeew la ku bëgg lu baax la ku laa la ku mën a muñ la ku bëgg lu baax la ku laa la ku mën a muñ la wax nañ ni dikkug soxna jaara ci kër sëriñ moom Maamoor moo ko sababu ndax moo wax ma sëriñ Maamoor gis naa jigéen ju baax ju am diine da ko war a jël mu ni ko damay yorul dara mu ni ko damay jaay samay takkaay jox la nga def ci ci loolu la jaar ba jël soxna jaar ba tey soxna Afsa arak arakki ka xaadi ma jaxate kala soxna Anta Njaay moo sabablu ak dikkam ci kër Maam Anta Sali te lii du la te lii du li mu jafe ci jigéen waaye seet jëm seet yàlla boroomam ak ëllëg tax na yu bëri yomb ko ba tey moo digaloon maam Cheikh Anta ñu jébbalu ci Serigne Touba ci Serigne Touba xaadalahu law maxtaara lahu loolu di ak yowam aku bëggam lu baax aku ak aku ñàkkam tiyam mu ñëw ci soxna astawaalo soxna astawaalo bokk na ca tànneefe mooy waajuru soxna jaara mokkaloon na alxuraan daana ko naafile guddi naafile guddi itam ku bëri xam-xam la woon daana firi alxuraan boo ko masaa fekk mu toog góor nga koy teg ndax ay jëlloo bi yu tan la daa tegale boo jàngal soxna jaara kon jigéen ñi war nañoo bàyyi xel ni ki doon def lii amul lenn lu ko sunu borom digal borom digal wàcc leen xanaa kay da leen a gën a ragal yàlla sunu borom rek te loolu dina war ñépp rawante na jigéen ndax yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam bi mu yoree sawara nee na ñoo fa kon jigéen war nay góor góor nay góor góorlu di jàng bu baax ndax ñi ci ëpp bu xamee doomam xam suñ bàyyi xel ni am jëkkër ju baax te wuta dem sawara boo jeerul fa nga war a jaar suñu borom wax na ni ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا waxiila duxula naara ma daaxili loolu li ñu firi mooy amoon na sama ñaari jaam yu baax yu amoon soxna yu bon bañ teerul fan war a jaar lañ fa di xew ndax suñu borom moo wax ni wax ni man yaxmal soo an yujsa bii wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira ku def lu bon da nga ko gis te kenn du la ci mën a dimbale ku boobaa fi mu ne soxna si soxna yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam li ñuy baax baax teewul sunu borom wax ni yaa nisaa nabi man yaati min kunna bi faahishatin mubayina yudaaf la alxazaabu dixfayn wa kaana dalika ala allahi yasira li muy firi mooy ku def ci yéen naka sudul noona def na ful ay mbugalam ñaari yoon te loolu di lu yomb di lu yomb sunu yàlla sunu borom dama yaakaar ni nag li ko waral mooy nekk gi nekk royteef ci mboolem jigéen ñi nga xam ni lu mu def day mel ni aw kon jigéen ñi war nañu bàyyi xel ku mel ni soxna Asta ci moom ak ak di bàyyi xel ku mel ni May Kubra ndax royteef la tànneef la ku yaru la ku wegu la ku am jom la ku am fulla la ku la bind na ñaari kaamil ginnaaw bi mu mokkalee alxuraan taalif na lu bari ku bëggoon diini la diini la ko fonkoon ak mbokk la ko tabe mooy doomi Sëriñ tubaa xaada lahu laahu maxtaara lahu kon war na jigéen ñu xool mboole melo yi ma wax ci soxna si ñu koy roy li gën bon nag mooy dégg lu baax te doo ci jariñ ku dégg melo yii boo mën boo mënte lépp itam danga nga ciy jël benn taxoo ko bu yàggee sunu borom xay na defal ko tawféex mu mën a jël beneen def ko noonu ndax dañu ilzam baaban tuftaxu lakal abwaabu boo taxoo benn bunt bu yàggee ñu tijjil la bunt yépp ñu ci gis-gisi jigéen jigéen ñi bindoo wala li ëpp ci ñoom mooy woyofum xel waaye loolu di lu am solo ci ñoom ci moom ba tey wàllu kàttan góor moo ko ko ëppale te loolu boo xoolee xam li tey xam li tax góor ëppale ko ko ndax moom jigéen kenn sant ko jaar walla benn liggéey bu riis ci yaramam lu dul toog toog toogal sa kër lu la sa jëkkër digal nga def te dabu bànnee xam sa kem kàttan bu meree doonte niroo nga mer merlu ngir mu ngir mu njort njort ni bànnee xam mooy sa bànneex bu la loo sonn son nga dem wuy ji ànd na kanam bu leer tey muñ bu bëggee wéet nga dem defaru donte waxtu woowa soxla woo ko ngir yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam bi alihi wa sahbihi wa sallama dani dani iza daa rajulu imraatahu ila firasihi fa abat fa baata wa huwa alayha xabbaamun lahanatha al malaikatu xata tusbiha loolu ahmad moo ko nekk li ko ci abi hurayra li mu firmee góor gu wóor soxnaam ngir bëgg a booloo moom mu bañ mu mer ngir loolu ba ba set ba set ba di set malaaka yi dañuy rëbb jigéen googu kon gis na ni jigéen lislaam santu ko lu diis waaye moom ci xelam mu gàtt day bàyyi li ko lislaam sant ci mbir yu woyof di jël yu diis yoo xam ni kenn santu ko ko ko ko te da koy tàbbal sawara bu ko bàyyiwul gis nañu julli léegi ñu néew ci ñoom ñoo koy def dina ëpp ci seen bari itam duñ ko fay te loolu di lu yomb te te kenn ci ñoom ñu ne wute bañ a fay borom ndawtal donte da koy lekk loolu dara gënu koo nekk xel mu gàtt ndax ba ñuy fay ndawtal am na luñ fay lu gën a taw bokk na ci seen xel mu gàtt soppi gi ñu soppi seenu melaw ndax ndax liy am xel mooy looy def nga xool mujj ga baax na wala déet te xeesal bokk na ci li ju jur der bu woyof ak gaaw a saxi boo nga xam ni bala ñu laa suul man ngaa tàmbulee xeeñ su ko defee xel yi li muy daal di dem mooy kii da da daa soppi aw meloom loolu di njort lu ñaaw boole yóbbaale def lu xaraam lu pis fa yàlla sunu borom bu taxawee ëllëg fa kanam sunu borom mun ko lu tax nga soppi saw melo ba mel nii ni ma la defoon da laa neexul ba nga soppi ko ma nit tey damay bàyyi sa bànneex te mu neex te mooy àjjana sawar yàlla ñu sunu borom musal su ko defee du mën lay ni dama doon topp sama bànneexu jëkkër ndax bu boobaa suñu borom da koy wax ni xanaa sama yonente ba salallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam waxu la woon laa taaxata li maxluqin fi maxsiyat al xaalixi al xaalixi kenn amul sañ-sañu topp mbindeef ci mooy yàlla suñu borom te sax li ëpp ci ñoom buñ koy def duñ ci diisoog seeni borom kër te jigéen lu muy def war na ci diisoog borom këram ba noppi waaye ñoom seen moroomi jigéen ñi la ñuy waxtaanal ñu leen di wax ñu leen di wax lu amul njariñ fii ci àdduna sàkkaa fa ñu jëm dañuy toog ci ay barab yoo xam ni nit ñi dañ leen romb su ko defee ñuy wax lu ñu war a wax saa su ne te la te la xewoon diggante Seydina Aysatu radiyallahu taala anhu soxna si yonentam sallallahu taala alayhi wa sallam wa sallam ak jigéen bu gudd mbicc beneen romboon doy na sëkk ak waar ndax jigéen nga da leen romb sayyidatuna Aïcha radiyallahu taala anhu ni kii moo gudd mbëcc mu mu soon ñu watoo ci suuf yonente bi sallallahu taala alayhi wa ko jéema la wàccu mu wàccu génne lumb deret yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam ni ko bu reesoon li ngay bokk ci man lépp mënul laa dem sawara lii nag war naa tax jigéen ñi dellu ginnaaw xool li leen lislaam digal ñu koy def te bañ a wax ni sunu borom bëri na yermane rek daal di toog daal di toog ndax sunu borom subhanahu wa taala moo wax ni wa rahmati wasiat kulla cheyin fa sa aktubuha lillazina yattaqun wa yutuuna sakata wallazina hum bi ayatina yuminun li ñu fir mooy dan sama yermane yaatu na ba daj lépp waaye ñi ma koy bindal mooy ñi ma ragal di julli di woor di natt asak booleeg gëm gu wóor kon kenn wërta toog loxoy kese ba noppi di yaakaar ak pay sunu borom nag mën a ne ndax yonente bi salallahu taala alayhi wa sahbihi wa sallama nee na غفرت لامرأة مونسة مرت بكلب على رأس ركي جلح ركي جلحس قد كاد يقتل العطش فنسحت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر له بذلك البخاري موقنة جلقة أبي هريرة li ñu firi mooy dañu am na jigéen koo xam am njaalokat la woon bokk ci bani Israil daa mas a romb ab xaj ci teen mu yàggat ngir mar nga xam ni xaw tur mu dee mu dikk summi bot wam takk ca ab musóoram gàc gàccal ko mun naan jikkil ko sunu borom jéggal ko ca loola mu ñëw ci xaq yi war góor ci soxna la ko njëkk a war a mooy ab dund ak cant bokk na ca xàq yi muy jotee moom ci laat laab ne benn yoon loolu am na ñu ko wax am na ñu ni ñeenti weer yu ne war na cee jotee moom mën nag li may wax mooy may wax mooy ni yoon amul yenn fan yoo xam ne lislaam wax na ko góor gi mooy seet li nga xam ni bu ko defee dana tax jigéen ji fegu mu koy def ndax jigéen ñi yëmuñu ci muñ ak jom war na góor gi itam muy bañ wax dara ci soxnaam ci mbiri biir biir te it muy suturlu buy booloog moom war na ko muy booloog moom ci fu doom ma ne ame te wax ñaan ji bala moo booloo allahuma jannibna seytaane wa jannibi seytaane maa razaqtana yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama nee na ku ko wax booy bëgg a booloog sa soxna boo ca amee doom seytaane du ko mën a lor mi ngi ci alfiqu sunna bu Seydi Saabi xaaju ñaareel ba xëtu 130 sëriñ Soy bu yàlla na yàlla yokki leeram faw wax na ci xuratul ayn xëtu 83 83 ni bala moo wuññi xawraam na wax lii bismillahi rahmaani rahim allah اللهم ارزقني من هذه ولدا صالحا واجعله تقيا نقيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته وعاقبتنا إلى قنا إلى خير يا أرحم الراحمين بتي وانا قومي يمل أي سخنام كم كاتنام خول الخطو كتروين كات خولة العين الملجة من حق يوري جيين تجكرم يرنتم صلى الله تعالى عليه وسلم لو law ana zawja saala min ahadi min xarayhi damun wa min alaaxiri sadiyun fa laxasatul maratu ma addat xaq zawjiha bu fekkoon jigéen benn bakkanu jëkkëram da doon yol ak deret ba ca di yol ak dët di ko mar du tax mu matal xaq ji ko war xaq ji ko war ci jëkkëram kenn ci jigéen génn jigéen mas naa ñëw ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa di ko laaj xàq yi war jigéen ci jëkkëram mu ni ko mooy ñu bañ koo tere boppam donte ci kaw bantu teg la nekk te it ñu bañ a woor benn bis benn bis lu dul jëkkëram moo ko digal lu dul weeru koor bu wooree ci lu dul ndigalul jëkkëram bàkkaar dong la cay am tuyaa ba ca tuyaa ba ca jëkkëram moo koy moom te ñu bañ a génn ci lu dul ndigalul jëkkëram saa su génnee ci lu dul jëkkëram malaaka yërmande yi ak malaaka yi mbugal yi yépp dañ koy rëbb ba keroog muy dellu si xiyaam li ñuy njëkkalaat jigéen mooy ak julleem ak xàq jëkkëram mboolem yi ma wax ñu ngi ci tanbiihul xaafiliin téerab abul laysi as-samarqandi ko defee kenn wëtta jàpp ni léegi mbir yi daa lëj ba kenn ba ba kenn jigéen waaye su ko defee kenn wëtt jàpp ni léegi mbir yi dafa lëj ba génn jigéen woyof nga xam ni du ci am bàkkaar ndax la xaraamoon ci jamono yonente bi sallallahu bi sallallahu taala alayhi wa sallam tey jii la gën a xaraam noonu la ko Sëriñ Tuubaa xaada lahu llahu maxtaar lahu waxee ci fatxul man man naan fii jawaabi Abdourahman Lo bi ci xatu kaar bu dee ci ñun Mouhamadou Lamine Sam am na bis may waxtaan ak benn mbokk ni ko ba ni ko xanaa jamono ji ñun léegi xanaa yu bëri war dagan léegi muy tegu ci kaw addaruraatu tubihul mahdurat te mooy lor dana daganan luñ cere li nga xamee ni kuy bëgg a dee mën a lekk mett mu ni ma xanaa gisoo waxi suñu borom ji qul laa yastawi alxabiisu wattayib walaw walaw ajabaka kasratul xabis fattaqullaha yaa ulil albaabi laallakum tuflihun loolu mooy lu bon ak lu baax duñ mën yem mukk donte lu bon la day gën a bari lu baax la bi muy wax ba àgg ci fattaqullaah dama tiit ñu jàll wax aaya bii yaa ayyuhal lasiina aamanu laa tasalu an tasalu an ashyaa in tubda lakum tasu loolu gën naa tiital mu mel ni man dong la aaya bi di waxal li may mottalee mooy leeral mbirum dasal ak lu ci aju dasal ci ni ko ñëpp xame mooy booloog sa soxna ba ndox ma di bëgg a génn nga sa sa génne sa sàkkara ngir ndox ma bañ a dugg ci biir loolu nag bañ am doom moo waral ñu bëri di ko def boroom xuratul uyuun nee na imam malik radiallahu taala anhu nee na dañ koo sib ak ñu mën dem waaye jigéen ji mën naa jël xaalis ci xaalis ci góor gi dog koo may mu dasal ba tey abu muhammad attihaamiyu nee na dasal dagan na bu fekkee daa am loo ci jublu mel ni dangaa bëgg mu mën a toppatoo ay doomam wala nga ragal mu ëmb ba tey wax na ci xetu cinquante cinquante six ni def loo xam ne day yàq këmuka la ba du mën a amati doom loolu daa xaraam ibnu arabi loolu la wax ak ibnu abdisalaam ak imaamul xazali bu fekkee dangaa def luy yàq ndox ma kese way kam mu ko wen nam meloon lay mel di mën a am di mën a am doom ba tey loolu moog dasal ñorem ba tey wax na ci xet woowu ni abu abbas alwan sari siyu nee na luy yàq ko mu ba du mën a amati doom ni ko ñuy tàggat seen yaram di defee wala muy génne ndox ma daa xaraam alaxam yi nee na li feeg ndox mi amaguñ ñeent fukki guddi dagan na nga def lu koy génn ba tey na nga def lu koy génn kon mel na ni loolu moo firi waxam ju njëkk ji ba abu abbas nee na ju def ay pexe baratal ndox moomu war naa goreel ab jaam te nañ koo yar waaye bu ko jëkkër ja jéggalee du góoral ab jaam jaam bi nag jigéen lay doon boroom fiqhu asunna wax na ci xaaj wax na ci xaaju ñaareel ba xëtu 131 ni lislaam ayiwul wàññim njur bu fekkee ni boroom kër ga daa ni bu ay doomam gënee bari du mën a yar ñépp wala mu ragal soxnaamu kàttanam wàññi ko wala am njuram tegaloo tegaloo lool te mooy neef wala moom boroom kër gi mu ñàkk ba amul yu ñuy dundale ay doomam al imaamu Xasali yu wax na ni bu soxna si ragalee ab taaram dem mën naa def lu wàññi moo xam ay garab lay naan wala leneen kon daa ni wàññi njur moo xam ay garab kon daa mel ni wàññi njur dagan gi dañ koo xiyaas ci desal te desal al Bayhaqi yu nee na mboolem saxaaba yii daganal nañu ko Saad bnu Waqaas Abu Ayyub al Ansaari Zayd bnu Saabit ibnu Abbas te loolu mooy ngir Malik ak Shaafi'i waaye Abu Muhammad Atihaami waxoon na ci téere ni Malik da koo sib ak nu may dem waaye Seydi Shaarix mu def ak fiqh sunna wax na ci xetu 132 ci xaaju ñaareel ba ci tuuram yi jéem a def luy dindi ëmb bi ginnaaw bu amee ñeenti weer dëgganul moo ko rey ba kan ñooyam ndax li yonente bi sallallahu taala alayhi wax ni ginnaaw ñeenti weer la war roogi ci ëmb bi bu fekkee ëmb bi amagul ñeenti weer kon mëneef na ko dindi ci lu dagan bu amee sabab bu amul sabab nag dañ koy si su ko defee liñ war a xam mooy def ñuy dindi mel ni ci biir këmbug bi dafa doon loo xam ni ñu bari dañ cee wute waaye mbirum desal moom imaamu Malik andi na andi ab hadis ak waxi saaba yu bëri yuy tegtale ni dagan xoolal mu watta xetu 108 xaaju ñaareel boroom alqawaanir alfiqiya wax na ci xëcc 184 nit dasal bala moo dagan ci sa soxna dang ko ci laaj ndigal ba noppi ki def téere bi nag mooy ibnu jusay ci ngiru malik radiallahu taala anhu lay wax nee na ba tey bu fekkee man fekkee man daa dugg ci biir kamuka gi dagal na tulum ngay jéem a def lu koy dindi rawante naag bu doone jëm rawante naag buñ ca buñ ca waleeru ga loolu ray bakkan la ni moy ya, wax yi iya ma dajale ci mbirum dasal ak wañi mbir iya, ki nga iya, xam yéen timi yéen a na set te nattale li ko doy mu top waye man ci sama xalaat ci sama xalaatu bop moy dasal luy cible amul ben njariñ ci man ndax bu fekke ragal ak ñak motax nga diko def dana ya, laaj ya, yow ndax mo ndax mas nga dox bayam ci bakkan bu faatu ngi xef te sax yow baay bi yaag doom ji yéen a yem képp fa yàlla mu leen di warsagal nahnu narsuqukum wa iyahum wa fi samaa'i risqukum wa ma tu'adun fa wa rabbi samaa'i wal ard innahu la haqqun misl misla ma annakum tantixun bu fekkoon bu fekkee daw amuk doom nga ci jublu suñu boroom ni ñu bind bind na ko bu yàgg te moo wax ni allahu yaalamu ma taxmilu kullu unfa وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار فهمتي أبيان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ملء السماوات وملء الأرضين إلى أبد الآباد وسلم وبارك مثل سالك